bi euh, juróom-ñetti waxtu jotee léegi lay élément dig ñëw kër Papa Alé Niang ci lañ ma woo euh, man tam ma ñëw fekk ko foofu ma ci jiite élément di kii woon benn mandat dama ne muy benn xaatim boo xam ne juge d'instruction deuxième cabinet moo ko joxe mais nañ indi Pape Alé Niang ko la man maa ngi nii ci cortège bi di dem xamaguñu ko li wóor rek na mandat dama ne bi ça concerne le dossier bi nga xam ne ci lañ ko may bàyyi négaté ko euh, toftal ci tëggat yu ko yoon di teg amaguma ci lu leer euh, li wóor daal mooy dossier boobu tax ñu yónnee ko mandat dama ne bi li ci des nag après dañ ko xam bu ñu ko toog ak sañ-sañ la bu juge d'instruction am. droit joxe mandat ne euh, jaar parquet ñu jox ko police ou gendarmerie jox ko sañ-sañam la matukaay bu ko yoon jox la maintenant lan lay waaj. bëri loolu lañ xamagul dama am njortu nag ne boo deful ndànk dañuy révoqué contrôle judiciaire bi parce que dañ ko bàyyoon bàyyi na ngeen ko ne dañ koy may gëpp maintenant dama njortu ne euh, dañu bëgg a révoqué contrôle judiciaire bi delloowaat ko kaso loolu lañ njortu wóoruguma nag mais lu ma njortu la rek ci kanam lañ koy xam suba buñ ca nagu juge mais maa ngi dem à la DIC ci convoi bi xam naa dina am interrogatoire bu sommaire ci des suba lay doon devant le juge xam. mu am rapport ak loolu mais lu wóor daal c' est pas nouveau il est possible que mu am rapport ak loolu mais des leer loolu daal bu ñu jàkkaarloog juge bi lañ ciy xam dara mais mënaguma ci tontu tontu bu leer. mais looloo tax